sukkandiku ci waxi bàyyi laa ko jàng ci ci way bàyyi na yal na yàlla def jumaa jumaam ji muy jumaa yu sunna moo tax dañ fi julli benn bis yàggul dara gee ma gis ñi nekk ci sàppe bu njëkk sës ci imam bu ne sami allahu liman hamida ñëpp ñu sëgg ñu ne asalaamaaleykum ma dal ci seen kaw neen waaye li ngeen def nii lan la ñu nekk magi imam ah li ngeen def nii lan la yonentu ne innama ju'ila al imaamu li yuqtada bihi hmm. ah sami allahu liman hamida muy def tumaaniina taxaw pour dallu ngeen si jur ci suuf yéen lu ngeen di yàkkamti yéen bu ngeen paree it bu paree du ngeen sëlmal te nit du jiitu ilimaanam yonent mu ne kenn ci yéen rusul jiitu ilimaanam sigg yàlla di soppali boppam boppam mbaam xoox lii lan la nii Baye Mbaye Cissé moo ne billaahi wal kitaabi maa ci biir julli ji waaye xamoon naa ne maa ngi lay gis ci yi xamoon naa ne lii moom da ci wax Mm. ah ma ne ko lii pour lan la. yéen jumaa ji jumaa yi sunna la lu fi nit gis rek sa na koo pratiquer ci feneen. da nga wax gis naa ko ci jumaa yi bàyyi ji. waaw. Ah. daf leen lii lan la. léegi nga gis sax koo xam ne dafay fekk nit ñi ci julli mu ñëw ca pegg jumaa ja ne allahu akbar rek am ñu rukoo yow da dugg di dabee ci julli kabaral ndànk rek <laughs> ah looy wane ne egsi nga ci jumaa ji tey sa pire kurus karaj karaj karaj karaj pour wan ni ñi ne nangam nangam nangam loolu jaru ko. jaru ko taxaw ba ti ba jug ba taxaw jël sa kurus sànni ko Maam Alaaji Abdoulaye Niass mu ne raj boobu sawtu boobu dégg nga kurus gii def rek sip nañ ko sip nañ ko te mën naa dem ba àgg ci xaraam téye sa kurus nii kurus yi kurus kurus yi per yi léegi ñu ne allahu akbar kabaram xelmaa rek nga sànni karaj loolu lu civilisé wut sax ah, def ko ci sa poche gannaaw pare nga ci kurus wasifa nga pare kurus gi def ko ci sa poche. wala nga laxas ko ci sa loxo nii wala nga sëgg taaj ko ndànk waaye bàyyi ko karaj karaj karaj karaj karaj karaj jubaa mu àndaloo mel ni ab orchestre <laughs> ñi dañuy nit ñi kenn xamul lan la wallaay te koo waxal ne ko nii la sax dégg nga bu la xoolee bi si nga sol fag rek bi sama classe gi mm-hmm. da ngay wax ne kii waruma jël ci moom dara man la sa yoon nekku ci benn waaye mos naa ko wax ñu taxaw nii sàppe mu xaw buus bus ñi xaw xaw a génn ma yor sama loxo ndànk pour teg ko ci gannaawam pour xëcc ko mu ñëw mu ne ma ci biir jur gi bàyyi ma waay. <laughs> ma ne ko ma ne ko man man tontu ko ne lu tax du ma la bàyyi. <laughs> ma la bàyyi laa ko wax ba pare kabaraat ma ne ko yonent ne xadis wax na inna allaha la yanzuru ila safil aawaji <laughs> inna allaha laa yanzuru ila safi l awaj hmm. ñun ñu bàyyi suñ kër yi ñëw julli si fii nga créel ñu sàppe si dëng nga tax yàlla du xool suñu sàppe si du ma la ko nangul pourquoi <laughs> yow yaay kan ah ah sol seen tuba yu bon yi mhm. ah, dégg nga nga fone ah, benn keroog rek man koy wax benn waaye jumaa ji mu naan ma bu sooba yàlla dootu am ah, hmm. ah ñu amee fond bi gàtt ba dee hmm. yow magam góor mukallaf dégg nga ñu ne rukkoo allahu akbar nga teg sa loxo ci say oom sa tubay summeeku daanaka ba sa ah, sa sa yaram yëpp ngi feeñ dégg nga silib bu xonq bi mu sol sax maa ngi koy ma a ma ne ko yow lii rafetu <laughs> gannaaw dem nga ba ñëw jàkkaa ci des mm. ma ne ko sol mbubb am nga mbubb mu baax <laughs> mais sol t-shirt bu gàtt ba pare sett ba ju bon ji nga sol nii di sëgg ci kanam nit ñi def yaram mi neen loolu rafetut ma ne ma dootuma ko def lii rek la nag <laughs> lii rek la waaw bu kenn sañ tax ngay wax waaye ku xam lu baax ku ne na ko jot li sa morom. non non ndeysaan boo gisee ku bëgg te li muy def amul fu mu ko teg xamul fu mu koy teg. Hmm. wan ko ne ko du noonu nii la. Hmm. man de loolu laa gis. noonu la bàyyi ma noonu nasiihatu minni ilaa ixwaani hmm. ngoog téeréem bu njëkk. nasiihatu minni ilaa ixwaani waaw laa biir li nasiiha qulnaa liman yaa rasulallah qaala lillaahi wa rasuli wa li aimmatil muslimin waaw diine laayante biir rek la. loolu da la fi bàyyi neewoon. ñu ngi ñaan yàlla. Eh, yàlla ñu ko yàlla fayal. amiin yaa rabbi yàlla yàlla ñu yàlla boole ci mbooloom. ñi nga xam ne mbootam moom ñun yàlla nañ ci jëriñu yàlla nañ ci jëriñi yaa rabbi yàlla mm. mel ni moom munuñ ko mm. waaye yàlla nañu yàlla yàlla yàlla nañ ñiru yàlla nañ ko inna tashabuha bil kiraami mm. dégg nga dafa baax niru niru nit baax ñi mm-hmm. tax nga baax dégg nga eh, ñun ñii soxla nañ waxtu wu nekk ñu jéem a leen niru niru lu parce que léeg nga gis ku la gis xam ne yow mi sa génération fekkee nañ bàyyi mu gëm ne loo def rek war na koo war na koo def ah, fekk mën ngaa def lu noonu nag dañ moytandiku loolu. waaw dañ moytandiku loolu. waaw. Euh, xam naa damay damay damay man damay tëjaale rek bàyyi leen. mais gars yi ka jot zéro quinze moo jot waaw. tëj na de. zéro quinze moo jot yokk nañu ko fi maa ngi tëj. <laughs> maa ngi gërëm Alfayda. Mm. maa ngi gërëm directeur mhm. Ibrahima Gaye maa ngi gërëm Cheikh Bachir mi waxtu wala mu ne man nañ jàkkal suñu dars bi ma ne ko ah dars bi day ñun ñu ko doon jàng gone yi dañu amul jot fi mu ne waaw ñoom ñoo amul jot ñaan ñaan yaa nangu ñaan yaa nangu ma ne ko ñaan yaa nangu wan ne ko gone yi amul jot wax dëgg yàlla mhm. man suma classe gi nga xam ne ay màggat lañ ñun jamuñ fenn mhm. dëgg yàlla man bëriwuma ay soxla waaw man bañ naa ko ba bu ma demee Ndakaaru sax bu fekkee li ma yóbbu ci sama loxo la ne man bu ma demee du ma fa fanaan bu ñu waxee mooy leen Sénégal lu ne matriculé nañ ko oto kaayal la mooy oto bi dëkk Kaolack mooy leen man man man kaayal la <laughs> man ma demee Ndakaaru du ma def sama bopp dégg damay gaaw ñib si léegi ndax fi laa xaj. <laughs> Eh, maa ngi koy gërëm maa ngi gërëm Cheikh Babacar mi Cheikh Bachir. Mm-hmm. libaas bëgg ceeb. Mm-hmm. Eh, jigéen ñi ak techniciens yëpp. maa ngi di gërëm eh, rajo bi keroog ba ko imaam Xasan Seet ubbi. Mm. ridwanullahi alayhi daf ne képp ku xam lu baax rek antenne baa ngi nii ubbeeku na pour yow. xam nga léeg nga gis fi ñuy wax loo xam ne daf lay óor na la ña su mooy kullu saydi fi jaw fi fara ñëpp xaj nañ ci moom moo xajul ci kenn. am na ñoo xam ne bu rajo dégg nga képp ku fa wax lu àndut liñ gëm du too ko ñaareel. suñu hmm. ñaar. rajo bi waxtu wu ne yéen a fi dégg lu lu ne. ñoo nekk ak ku ak wax ju nekk yéen a koy dégg. Hmm. waaye loolu yëpp da ngeen a gëm ne. dégg nga yàllaa bind moom ci doomu aadama yi. dégg nga ngeen nangu ko bi xalbin salim dégg nga wan ko ne ko lii xam-xam rek la xam-xam dëkkut fenn. amut amut couleur amut am am am amut taam. ku ko am rek alxikmatu daalatul mu'min anna wajadaha axadaha loolu ngeen gëm loolu la yonent wax moo tax ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi leen di sant bu baax ñu ngi joxante ñun ñëpp du ma wax li gars yi waxee ñu ngi lay jox dig daje dig daje du olof dig daje hasard la du olof ñu ngi lay dig daje rek la dox daje. Ah, maa ngi lay dig dig <laughs> daje. maa ngi lay jox dig daje. dox dox dig daje. maa ngi lay jox maa lay jox dig daje. Mm. déedéet maa ngi lay dig ma ma maa ngi lay dig ne dañ dajeyaat rek la. waaw yal nañ dajeyaat ñun ca tey bañ a seen. ca Banjul. Mm. ca Dakar avril. Mm. incha ca Cubbeen ca Santhiou Amath eh, ca Kër Yoro Xojo. dégg eh, ñu ngi yooyu yëpp moom avril la waaw yooyu yëpp ñu ngi koy waaj. fu ci nekk nag. fu ñu fi mën a dem itam. man naa am wax ji ñu bari ñu ñuy déglu nañ gis ne àndut ak àddina waaye noonu la dégg nga nit ñu ne am nañ couleur école bu ne am na verbe yu ñu fay conjugué hmm. dégg nga fii qaala allahu qaala rasulullahi qaala cheikhu moom la ñuy wax <laughs> ku bëgg déglu loolu dag ñu déglu ku bëggut déglu loolu jaru may taxaw fii naan man la diw wala soo ma bàyyee diw jaru ko hmm. waaw soo ma bàyyi fi mu jaaroon ba baax naa fa jéem a baax jaar ba baax hmm. waaye em ci di ko tiitaroo ndax moo ma jur rek loolu amul njëriñ. Mm. dégg nga euh, loolu amul njëriñ. Mm. kun ibna man chita loolu arab baaxoon waktasib adaban yakfiika mahmuduhu wa ani nasabi inna al fata man yaqulu ha ana za mm. laysa al fata man yaqulu kaana abi ah, loolu jaru ko kon ñu ngi dig ñëpp daje ca Taïba Niassène ak barab yooyu ma tudd yëpp yàlla ñu ci yàlla yóbbu ci jàmm yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne bu ñu déggee wax dañuy topp la ci gën a rafet dañu ne tabiuuna al qawla al ismauna al qawla fa tabiuuna ahsana dañuy déglu tey topp la ci gën yàlla ñu yàlla def ñuy jullit rek yàlla ñuy jaami yàlla yàlla bu ñuy jaami leneen yàlla ñu yàlla wattu yàlla yàlla wattu suñu mbokk gii yàlla na yàlla wattu ñu ci biir dëkk biir ñu dëkk dëkkandoor gi yàlla ñu boolee ci benn pàkk ñu dëkk ci mm. ki ñu fi boole muy Cheikh Ibrahima Niass radiallahu anhu mm. ñun ñëpp ñu fi boole mm. ñu nekk fi ñu nekkoon ci ron yërmandeem ak mbëggeelam dégg nga ak ay ñaan yàlla am yu yàlla nangu. dégg nga loolu yàlla bu ñu ko weddi. amiin yaa rabbi allah eh, yàlla ñu yàlla def ñu ay taalibeem rek. amiin yaa rabbi allah eh, lépp lu ñuy def yàlla nay. ngërmande yàlla moo tax ñu di ko def. lépp lu ñu bàyyi it yàlla nay noonu. amiin yaa rabbi allah eh, fu ñu yàlla bëgg a gis yàlla ñu dimbale ba gis fa amiin yaa rabbi fu ñu bëggut a gis it yàlla ñu dimbale ba mu ñu fa gis amiin yaa rabbi allah ñu ngi ñaanal ñëpp mm. ñu ngi ñaan jàmm ci réew mi ñu nekk mm. yàlla na fa yàlla def jàmm ji ñu xam ne jàmm la yaa rabbi yàlla mm. eh, xew-xew yi ñu génnee jeex na mm-hmm. jeex na politique jeex na fi mu ne nit ñi nañ dem liggéeyi nag nañ mm-hmm. bàyyi élèves yi ñu jàng jigéen ñi sëy gone yi liggéeyi ñu naatu ci jàmm ba leneen jeex na bu beneen jamono waaw jeex na waaye dégg nga gis nga juróom-ñaari at duñ ko politique dafay tas réew baaxut <laughs> baaxut ndagam ñaari fukki fan lañ campagne réew mi bëgg a tas hmm. sàkkantement buñ ci bëggee teg juróom benn juróomi at ne dañ koy politique baaxut santu yàlla dégg nga amul ko nit léppam du baax léppam du bon li bon dañ ko bàyyi te jëm koo jubbanti li baax nañ ko ci dimbale mu sukkandiku ku ñu fi mën a jiite itam gënu ñu sénégalais la rek ah, waaye ñun ñëpp mënu ñoo bokk nag doo ay président 14 millions Sénégalais yi mënuñoo am 14 présidents mënuñoo am. Hmm. mënut am kenn ci am ñi ci des bu ko yàlla tuddee dinañ ko dox. comme ci mën a doon nag yal na yàlla dimbale ba nga ba nga dëggal yaakaari Sénégalais yi. Hmm. ci yow yàlla nga liggéeyal diine ji. Hmm. yàlla nga liggéeyal réew mi yàlla nga liggéeyal xeet wi. yaa rabbi yàlla yàlla na yàlla génne ci suñu xel yi par parloo. amiin yàlla ko yàlla génne ci suñu xel yi. amiin cot cotloo gii ma gis nit ñi indi ci diine. yàlla ba mu law. amiin gàncax la goo xam ne fa sax yàlla na dee. amiin yaa rabbi yàlla. Mm. nit ñi ci jàmm rek lañ dëkkoon fii. ñu bokkut ak ñun diine sax amuñu woon ñoom benn ay. déedéet sakantuma nag ñu bokk benn diine ñu indi ay cottaloo ci seen biir yàlla boo yàlla def loolu. sëriñ si maa ngi koy waxaat lañ leen génnee ci li nga xam ne dafa uuteeg liñ nekkoon. ku ciy jaay ren demal jaay ko ci sa turu baay wala ci sa tur. <laughs> dégg nga. Mm-hmm. ku ci saaga demal saaga ci sa tur. boo ñemee mm-hmm. wala ci sa turu baay. Mm-hmm. dégg nga sëriñ si ay gidd la ñoon yoo xam ne dañuy dimbale jaami yàlla yi ci nii la ñuy fii yoon wi ci la ñuy aw ngir am ngërmande yàlla. yàlla yàlla dimbale. ba kañ ci fareet kuñ ci mën a fareet. yàlla ñu yàlla dimbale bañ topp ko ci loo xam ne neex na yàlla. amiin yaa rabbi yàlla ñun Cheikh Ibrahima Niass mooy suñu sëriñ. Eh, yàlla ñu yàlla dimbale ba ni meloon ñu mel ko. moom nee na bu yonent seqee tànkam bu teggee mu teg. Mm. ñun itam yàlla ñu yàlla dimbale ba bu teggee tànkam ñu teg foofa. amiin yaa rabbi yàlla yal nañu yàlla wattu yal na yàlla wattu suñuy njaboot yal na yàlla dimbale xalifa bi Cheikh Ahmed Tidiane yi yal na yàlla dimbale ko mm. eh, sëmb yi ñu fi tudd ci dëkk bi yëpp mm. yal na ko yàlla àggale yal na ko fekkee yal na yàlla dimbale imam Cheikh Tidiane Cissé dafa tukki yal na ko yàlla delloosi ci jàmm mu ànd ak ndam yaa rabbi yàlla ñun ñu ci des ñëpp yàlla ñu yàlla muur yërmandeem bi xurmati allahuma salli ala sayidina muhammadin alfatix lima uxliq walxaatimi lima sabaq nasir alxaqi bilxaq walhaadi ila siratika almustaqim wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alazim salatan taftaxu lana biha baab rida wa taysir